mbokk yi bokk na ci xeexu seytaane ni muy xeexee nit ñi mooy da leen di dévier ci wàllu pas-pas par exemple dafa nekk luy naqaree waxtu suñu dëkk ndax Sénégal waxee fi moom dafa metti loo wax rek mën ne daa am ñu mu jublu maanaam ñun diine ni ñu ko jotee diine ñun ni ñu ko jotee ak yiñ ci yokk dafa mel ni rek benn waay bu jënd benn oto oto Europe indi oto bi dawal ko quelque temps oto bi am paan mu yóbbul mécanicien bi néew na oto nga jox ko mécanicien mu liggéey ba pare te amul lu mu fa manqué imma de dana manqué wala dara manqué loolu dootu ci bokk te tubaab lu mu def ci oto bu ci manqué buntu feeñ mais boo waxee mécanicien bi lay gën a lamb non non teewul daw oto bi et tubaab bi dafa am temps rek lu nekk mu def ko ci oto. non mais boo demee ci mécanicien bi mu dindi lii nga dem ci bee mu dindi lee nga dem ci moo tax oto yëpp boo seetloo seen borom boîte yi ay vis ay écrou ay dammit loolu lañ fay teg parce que lu gars yi fàtte xamatuñ fu ñu koy dugalaat rek teg nañ ko parce que li ñu jàngee métier bi bokkul ak ñi ko jàngee ci ay machine yoruñu moyen boo xamante ne mën na ci téye oto bi fu nekk ñu delloo fa la fa nekkoon xel rek la ñuy demee ak lenn ci xam-xam kon il faut moom ñu bàyyi mbokk yi loolu ñu dal ci diine ñun Sénégal bokk na ci loolu leen dal ci diine diine bu mu duggee fii ñim fi fekkoon dañu ko jot mu ànd ak yeneen mbir mu ànd par exemple ak ay tariqa ay yoon ay yoon boo seetloo yoon yooyu pour ñoom dañoo jàpp ni dara nekku ci te fekk amul luy am lu dul am na lu mu yàq tey ñaata ci nit ñi ñoo sàgganee diine parce que dafa am fu ñu wéeru dem na ba léegi bokkaale boo ko waxee wala pas-pas ñu ne daa am ñu muy jublu et pourtant yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li mu indi woon bu ñu ci amoon du ñu mel ni waaye tey ña fi nekkoon ci ñenn ci mag ñi ñu baal ma ni ñu jëlee diine jéeg ni ñu ko appliqué mooy ni buur yi daan defee démb ceddo démb yi buur yi da doon toog ci kaw ñëpp toog ci suuf ni buur ñii nga def leen jaam di leen liggéeyloo duñ ci mun dara nga xool bi tariqa yi ñëwee même système moo am buur yi dañoo forcé ñee jaay leen doole def leen jaam sëriñ si dañoo nax ñii ci diine def leen i jaam du du neex a wax nag ngeen ngeen baal ma ko vraiment du neex a wax sëriñ si dañoo nax nit ñi def leen jaam xam nga jaam bi gën a garaaw mooy jaam bi nangu ne jaam la mais bu dee ci buur yëpp am na ñu ñu defoon jaam ñu résister ba ñu rey leen mais yow non subhanallah <laughs> nga waaj yi waxal li ngay bëgg wax yëpp doo ko ñemee wax wala doo ko mën a wax parce que boo ko waxee rek mu am ñu ne daam loo jublu quoi moo tax suñu réew dafa metti waxee imagine tey buur bi da doon ñëw di nangu impo ci nit ñi kilifa diine bi day toog nga indil ko impôt xam ngeen impôt est-ce que duñ ko ko jox alhamdulilah kilifa diine bi day toog nga indil ko impôt buur bi da doon toog ne dem leen bàyyi li ma kilifa diine bi day toog bàyyil leen ma ku bay yàlla fay la dañoo bay te loolu ci diine nga ko defee bul japp ni mukk nit ki da ko def ni rek ma mais dafa japp ni ki tedd na tedd bo xamni luma ma ko defal yalla fay mako momit mu jappé bopam lu raw bur mu jappé bopam lu raw bur bañ ñako ba ci kaw lay tok bañ ñako bu bu lay ñaanal da lay tufli wu la bañ ñako ba yow bo amé problème da ngay sukk ci kanamam kif kif nonu ñu jëlé diiné ni ñu duggal ñu ci problème askan ndax ñu ka japp ni bo santee sant sangam rek ya gën ku dul sant bo dem ba nit ñemee bayyi santam di wuy sant bayyi jàmbur lool njaama ko tane sal <laughs> sal wuy wuy bu la señ bi wooyee ba nga woo sa dom sa buy bu ma déggati nga wuyu lu dul sal dina la nangam parce que yow japp nga ni diiné la et pourtant du diiné dañ la nax mais xamoo ni dañ laa nax kilifa bi ci boppam day amee toolam war koo bay baylu ñu bayal ko ko ba pare ne ko ñaanal ma buur bi da ko doon bayal ñëw am naqar dem sa yoon doo ci mun dara mais kii dalaa gëmloo ni ci sa bopp maa la gën ci ndey gën la ci bàyyi gën la ci maam ci lépp maa la ci gën loolu la dugal sa biir bopp léegi nag commerce sa kaw ci wàllu diine li ñu la joxee diine mooy liggéeyal ñu rek loo liggéey yàlla fay la ko est-ce que kooku dina tala xalaat ci diine mais doto xalaat da ngay bëgg a nekk rek benn al toppe loolu nag bu fekkee dafa tasaaroo ci biir dëkk xàmmewuñu lan mooy al islaam xaqiqatan xàmmewuñu lan mooy sunna xaqiqatan moo tax boo waxee sunna dëgg-dëgg boo ko waxee nga am ak ñële problème parce que nañu jàppee diine noonu la loolu mooy déviance bi gën a grave te ci ay mag la jóge moo xam xam nañ ko wala xamuñu ko nit ki bu ñemee bokkaale bu ñemee saaga yàlla ñeme saaga yonent bi ñeme yàq pas-pasam mais kii nekk góor jigéen du dara ci moom